waroo ko lor waroo ko def loolu bon parce que ëllëg moom day seede ne maa def li lii ak lii la doon def man sama loxo bi lii moom day bañ day dàq jëf yi bu leen ko lor yaa ngi dégg kem sa kem kàttan wa an yuhibba lillaahi tey na bëgg ngir yàlla wa yubrida lahu tey suy bañ na bañ ngir yàlla waaye ngay bëgg parce que waaye affaire bi Bob Marley kii ni mu ko bënnee nopp bi ni muy kiiwee affaire yooyu au lieu que nga bëgg ngir yàlla mais nga bëgg ngay bëgg ngir keneen ngay fan keneen daal koy fan da nga ko war a fan ngir yàlla waaye Messi non mais Messi su téye bal bi non soo booy boobu du nit ci ni la nga bëgg ko ba jël photom def ko sa néeg loolu erreur la kooku ban njëriñ la lay amal yow ma xam fubalam bal boobu moom ñuy jël di fo perte loo julli ñi seen temps seen seen concentration jànguñu alxuraan naafilawuñu julliwuñu ci yonent bi ci waxtu boobu doxuñu jo jokkuwuñu mbokk xooluñu borom xam-xam ci waxtu boobu xooluñu alxuraan xooluñu kaaba gi xooluñu yeneen ak yeneen ak yeneen ñuy xool loolu 90 minutes mu tardel la nga ne yow ko ngay fan ku lay tardé 90 minutes minutes multiplié par ñaata ci sa vie bi allahu akbar ko ban njëriñ la am nga ne yow da nga koy fan kon sooy bëgg nit da nga koy bëgg ngir yàlla waaye da ngay bëgg gars yi ñoon Cheikh Ibrahim Niass ñoon Seydi Ahmad Tidiane yi Seydina Muhammad ñooñu ngay bëgg yaa ngi dégg wa yarda lahu wa yaghdaba lahu te it ngay gërëm lu di kontaan ngir yàlla sooy kontaan sooy mer tamit nga nger mer ngir yàlla comme Alioune rek Ibn Abi Talib taarix bi leen nettali du ma ko firé de du ma guddal may wax nii rek keroog ba mu jekkoo yëfër bi dem ba ko war a rey rek Aline si benn xare yëfër bi tufli ko Aline mer a mer ba bëgg ko rey su ko bëggoon dóor benn caw dóor ko caw bu gën a fort rek mu lox rek sànni jaas yi yëfër bi ne ko yow looy def ni mu nekk dama xam ne ne ba ma tuflee sama bakken dafa dugg sànq islam laa doon xeexal te su ma laa islam moo la naroon rey waaye instant yi ma tuflee fàtte naa l'islam sama bakken laa jàpp ba bëggoon na def lu ñaaw waaw kon su ma la rayoon rek rayalatul ray xeexa dafa fekk xeexalatuma lislaam kon rayuma la ci yoonu yàlla comprendre nga kooku ne jóg ne ashadu maa ngi tuub ne léegi man julit laa su dee lii mooy seen diine yéen kon sooy gërëmlu di gërëm nit wala di gërëm dara dafa war a doon ngir yàlla waaye nit ki def lu bon nga koy gërëm parce que mooy musulmi wala parce que mooy diw déedéet ah sooy meree nit tamit da nga ko war a mere ngir yàlla moo tax bàyyi loolu daal moom ko wax ko lu ne saaga ko wax ko lu ne déedéet waaye soo laalee yonti mu mer soo laalee alxuraan mu mer soo laalee mbiru julli mu mer loolu la julli dafa war a am éducation boobu wa ya am mura bil ma'fur wa an xam nga dafa ne wa an yuhibba lillaahi mu ne wa an ya amura bil ma'rufi ci mu jëf ci muy digle mbaax wa yanha anil munkar ci di tere lu ñaaw mooy lu bon wa yaxrumu alayhi alkazibu wal xiibatu wal namimatu wal kibru wal ujbu wal riyaau wal sumatu wal xasadu wal buxdu wa yaxrumu teyit araam na ci moom alkazibu fen fen de li mën leen ci mën a wax na mu bëri na moom fen daal baaxul jullit daal yonent bi doy ne nee na du nee na jullit du fen waaw nee na jullit mën na def li ba mu des fen yaa ngi dégg ndax fen su ko nit buntu fen nit su tëjoo ci moom rek buntu yëpp day tëju ku am kàttanu fen rek mun na leneen lu dul loolu ku dem ba mun fen rek xamal ne dina il est capable de autre chose koo leen gis mu mun fen nii il est capable de plus que ça dégg ngeen wala xiibatu ak jëw di jëw nit ñi baaxut yonent bi nee na ndax bëgg ngeen lekk yàpp nit ku dee seen seen mbokk mu dee xam nga loolu bëggoo leen ko mu ne jëw noonu la mel yeneen saa sam benn saxaaba laaj na ko jëw mu ne même même ci kanamu nit sax soo waxee loolu jëw la mu ne ko waaw foofu la bàyyi di wax inspiré wu ci xadis boobu mu ne même ci kanamu nit sax jëw xadis yi yëpp dinaa leen ko recenser defal leen ko ci këyit bindal leen xadis yëpp defal leen ko ci këyit après Malick nga photocopier ko nga jox leen ko su ko defee soo leen jàngati lax dëgg ngeen gis ne di xadis yi yëpp la ñuy indi ci wax yu gàtt yi ay tënk la daal. dégg ngeen yi wax ci feneen yooyu wala xiibatu jëw wan namimatu ak rambaaj waaw xam nga rambaaj moom baaxul yàq diggante la wal kibru ak rëy wal ujbu ak di yéem sa bopp yéem yéem sa bopp moom la mag yi di wax xaaw nit ki dafa xaaw man kay sama daay kay moom man kay moom sure man moom wuu man sumay sumay man sans rakk laay naafila te man gis na sama naafila nii du comme naafila gars yi muy gaaw nii damay sujjóot jël sama temps jaamu yàlla bu sel di yéem sa bopp daal ci lu ne ngeen moytu ko wari yaaw ak sàkku gis leen ma bëgg nit ku lay gis ngistalu loo def rek tant que nekkul ci bëtu nit ñi sooy joxe sax te nit ñi gis ñu ko rek yow doo joxe xaar ba nit ñi ñëw wala sëriñ bi ñëw ñu ne ah xaar ma ba fomp kër gi sëriñ bi xam ne maa ngi maa ngi ciy jàpp déedéet loolu yëpp ngistalul wa sum atu waay mooy mooy mooy sum a mooy ñu fexe ñu ñu lay dégg mooy nga fexe daal ndéggtal lañ koy wooye ci ci wolof ndéggtal mooy nga fexe daal ñu ne i non Moussa Ndiaye moo def lii ah moo yóbbu ka keesu firi keroog yow daal looy def da ngay fexe nit ñi jot ci ah bu ko fàttee kii de wala di nga am benn jëf boo def pour nit ñi fàttali loolu nga jëf fexe ba nit ñi dégg ñu ñu ñu ñu dégg loolu ngeen moytu loolu dégg ngeen wal wal xasadu ak kiñaan li ci yonent bi wax tamit doy na xadis alxuraan sax la mu ci wax bëri na waaw day lekk bi maanaa jëf jëf yu baax comme ni safara di lekkee matt wal boxdu ak mbañeel kenn du bañ jullit bàyyi nee na bët bi may xool doomu aadama mayu ma may ma koy bañ bët boobu ku ko xool doomu aadama doo ko bañ waru waru yetul fadli alal xayri ak di gi fexe di gis ngëneel ci nit ñi lu baax ci nit ñi fexe mais yow lu bon rek ngay gis ci nit ñi fexe tamit di nangu ne ñeneen ñi baax nañ daal ñoon di loo bon bon bon nag war ngaa nangu ne gars yi ñu ngi def lu baax di fexe gis ngëneel ci nit ñi dégg ngeen waaye am na ñoo xamante ni ñoon meluñu noonu am na benn waaye bu ma ma doxantoog moom di waxtaan man ci kii de këram gi ni mu rafetee mu ne moo yow de xamoo lu xew yow yow ñii seen kër yi li seen xaalis yi lewut de yow Moussa waa yow yow xamoo moo yow ñii seen kër yi nii ngay gis nii laay la en général borom kër yi rafet yeeg nii yëpp ñu ci bëri seen kër yi lewut ma ne waaw lii moom loolu lan lan la xaw na ko pour walla dafa am nit ñoom du ñu gis lu baax ci ñeneen te loolu baaxul daal comprendre nga waaw su defee lu baax sax ñu ne moo day bëgg a dee moo tax xam ne su ko deful tey su defee lu baax mu ne moo kii de kii de da am na lu mu ci jublu daf leen ko waxul rek day walla walla muy def lu baax sax ñu day teg dil si xam nga léegi jamono ji foofu lañ toll kuy def lu baax sax walla kii léegi nit ñi wóolootuñu dara moo kii day teg dil soo xam naa dala bëgg a teg dil moo tax mu ñëw temps yi di la seet si di la neexal muy xool fan la lay jaar gis nga déedéet nañuy xool loolu nga nga bàyyi ñu lay nax sax moo gën ngay doon affaire de nanditeeg yooyu bëgg a dem détective ba sinon dootoo jaamoti yàlla ci nit ñi nit ñi man damay faral di wax man Moustapha Gueye damay faral di wax ne nit da nga war a jël nit ñi sa morom nit nga def leen escalier ci sa borom nit ku ne dafa war a doon benn marche ci escalier bi boo xamante soo ci tegee sa tànk rek da lay yéegal ci sa borom bi maanaam benn marche boobu moo lay yéegal ci sa borom mooy nit ku nekk rek da nga war a fexe jaamu yàlla ci kawam ci moom moom su jaamuwul yàlla ci yow yow fexeel nga naxante ci kawam nga jaamu yàlla ci moom su lay nax yow nga jaamu yàlla ci moom yow kon def nga ko escalier romb waaye nag su ñëwee ne moom kii neexuma escalier bi dafa tilim ba doo ci dëgg sa tànk ah mais doo jàll ah soo jéemee yóotu beneen bi mu sa tànk bi écarté fa nga gaañu wala dara wala nga glissé ah noonu comprendre ngeen mu ne waru yotal fadli alal xayri wala xamzu wala lamzu xamzu moom mooy piis comme di piis ay nit wala di ay rag raju ragaju yooyu jigéen yi ñoo koy faral di gën a def xamzu ak lamzu ñoo ànd mooy ñaari jëf yooyu noonu mooy jëf yu sew yi daal comme nit ñi toog ñuy xool ay xool yu sew am ñuy def daal kii yooyu noonu xam ngeen yi may wax daal te yàlla nee na am na benn xur boo xamante ci safara yonent bi nee na xamaa zuuna yi ak lamaa zuuna yi ñoo fay dugg benn safara boobu spécial waaye loolu li kulli humazatin lumaza allazi jamaa maalan wa adada gis nga ngeen moytu loolu wal abasu wa suxri yu abasu mooy fo xam nga seetaani match loolu foo la man de mënatuma ko man de alhamdulilah yàlla may na ma ba suturaal na ma ba léegi sama xol bii te xaw ma ñaata at a ngi nii ci sama dund fàttaliku ma fenn yoon fu may amee yëg-yëg ne damaa bëgg dem seetaani ay match di jël di ci jël temps ma damay jég-jég gis ay nit yoom yow da nga leen di fonk respecté leen foog ne ñoom naka de am nañ benn kawe nga jékki-jékki ñuy publier seen statut ay whatsapp ay ay barça xawma lan wala di bind facebook di commenter man après man loolu daf may yéem man waa ñii ñii kon fii lañ toll ba léegi man pour man yi nit ñi dépassé nañ ko di ah ak mbir mboorom xeetu foo rek daal nañ ko moytu dégg nga wa suxuriyatu suxuriya moom mooy xoolu xool bu bon tamit ci xool ci mooy mooy mooy mooy reetaan lu daal mooy reetaanu xol daal reetaanu xol mooy suxuriya noonu la ko war a fi firee mooy reetaanu xol mooy daal comme nit ki daal ñu xoolante ni ama parwa da nga koy kii xaw a di mooy di ko di ko kaañoo daal di reetaanu xol bi noonu ndam su génne rek nga suy génn rek nga nga nga bàyyeeku mu ne man kay man saa yi lu muy muñ yëpp lu muy wax yëpp maa ngi muñ xaw ma du ma koy yor mais reetaan boobu reetaanoo parce que kooku dafa reetaan lu de mais am nga noo koy xoolee moo tax. am nga benn préjugé boo amoon ci moom avant su waxee nga koy xool kii moom kay moom kii ku mun a fenn ak ku mun a xool ñuy wax xoolante di def nii mooy genre yooyu loolu la ñuy wax suxri yi yaa ngi dégg. mooy ngeen moytu loolu aussi fan naa yemoon mu ne wan wa nazar wa nazaru ila al ajnabiya ila al ajnabiyati wa talazzuzu bi kalaamiha wa nazaru ila al ajnabiyati mooy ngay xool koo xamante ne miinoo ko ci jigéen ajnabiya ti la wax mooy ci jigéen mooy une étrange une femme étrangère une femme boo xam tàmmoo ko gis mu romb nga nekk di ko xoola xoola xool yooyu baaxut xam nga jigéen yi nga tàmm di gis doo leen xool noonu mais nga xool benn jigéen di ko xool di ko xool di ko topp di ko topp ba 5 kilomètres ci bët loolu kenn xamul lan mu mel ni yàlla moom rek la bind loolu sax xeeb yàlla la xanaa même soo koy xool ngir ne dafa rafet soo ci taxawee sa soo ci saxee nii rek xeeb nga sa borom ndax li mu bind li ko dàq moo ëpp kon yow caalit nga taxaw di ko xon nan ni nan ni mu mel ni yàlla loolu rek la amal non mais yow nan ni sa copain mais yow yaa ngi gis li may gis xam nga loolu tardement la léegi yow koo am doo ci jot yow loo def ak moom soo ko takkul bàkkaara la ciy jël kon léegi xool bi ban njëriñ la lay amal da lay gaañ kon di xool lu lay gaañ amul njëriñ ah watala zuzu wala di sàkku bànneexum bi kalaamiha ci ay waxam jigéen buy jaay dara sax yaa ngi fexe soo amul soxla sax nga fexe indi wax kërëb kërëb pour parce que ni muy waxee yooyu neex na la rek di bànneexu ci ay waxam fii dañuy nettali benn xisa ñu ne nit sooy bànneexu da nga war a bànneexu ci yàlla ak yonent bi ak ay nitam ñu ne ndax yonent yàlla Moussa kàddub yàlla bi dafa neexoon ba ba mu koy dégg da doon bànneexu ci kàddu yi ba yàlla su ko laajee da koy tontu lu ëpp lu mu ko laaj ñetti tontu yàlla ne ko wa maa tilka bi yaminika yaa Musa xam nga dafa waroon wax xaala xiya asaaya asaaya mu ne lii da mu ne lan moo nekk ci sa loxo ni yow Musa waxu bànn baatu yàlla bi ak ak conversation ak intimité boobu mu am ak boromam daf ko neex ba loolu daf ko neex ba bànneex bëggul mu jeex mu ne ko lii sama bant la ci laay sukkandiku su may dox ci àll bi ah moom mooy moom mooy xawil yoon bi ah moom mooy lii amal na ma yeneen njëriñ di expliquer yàlla laaj ko loolu lépp di lii la nga see loxo lan la daf ko waroon wax bante rek la waroon xam-xam yi ñu ne gis nga loolu mooy bànneexu ci kàddu ci kàddu yooyu yaa ngi dégg atawakkau alayha wa axush biha alal hanima wa liya fiha ma'aribul uxra mu ne wa aklu amwaali naasi bi xayri tiibin nafsin wa aklu amwaali naasi mooy di lekk alal nit ñi ci lu dul seen teeyaayu bakken mooy ci nax nax leen ak teg dil bi ñu doon wax sànk mooy yaa ngi lekk nit ñi seen alal ci xel ci teg xel daal nax leen ba lekk seen xaalis kooku lewut wala nga ngi gis koo xam avant muy dem ci kilifa nii surtout ñun ñi loolu nu ñuy dal lu mu bëri gaa yi suñu waree ñëw di wax sooy dugg ci kër sëriñ bi asalaamualeykum rahmatullah kum salaam koy nuy naan asalaamualeykum kum salaam ah na ngeen def alhamdulilah mbaa ngeen si jàmm danga sëriñ ku ñëw di la jox loxo sax nga ne ah waaleykum salaam fekk am nga loo tufli sa loxo loo am soo ko nuyoo koo nuyu rek loo ko laaj da la koy jox comme sëriñ bi moo am njëriñ ci kër gi moo yor xaalis bi nga ne comme ça su ma ko nuyoo lu ma ko laaj dina ma jox sama soxla bi xam nga yooyu sëriñ bi su dee yow da nga ko liggéey ba jàpp ko keroog li nga lekk ci moom lew ndax nekkul ci teeyaayu bakkenam wala yooyu nit ñi di def woo la téléphone naan dangaa gañe ay affaire ak wax la ay affaire mais balaa am nga un million cinq cent wala deux millions mais balaa nga koy retiré foog nga jox ma temps parce que pour lii lii naxaate daal ak di lekk alal nit ki loo xam xolam àndu ci rek ci gàttal ci gàttal mooy loo xamante ni xolam àndu ci noonu lañ koy firi wal aklu bi shafaati aw bi diini wala it ngay lekk alal nit ñi ci intervention shafaa mooy intervention comme nga ne ah diw placé na am naa place ci mairie bi wala sàngam i soo ma joxee sàngam dinaa dem ci waa ji ne ko mu mu gaawal dossier wala doorang wala soo ma joxee sàngam dinaa wax juge bi mu baal la wala mu wàññi peine bi wala dinaa fexe dossier bi ñu nëkk nëkkal ko loolu mooy ram yooyu baaxul dégg nga moo tax képp kuy lekk alal ci yooyu tamit alal yooyu lewul awal kaay nag moo wax leen dara alal gu lewul du mënul saraxe sarax yàlla nangu moo tax soo leen di génnee sarax dañ leen xool alal yi gën a lew seen alal yi ngeen koy génnee sarax bàyyi sa onok ci ruul adab ne ama tilka sadaqa waaw mu ne loolu mooy sadaqa bu rafet boobooy boobooy sarax bu baax ne ama tilka sa sadaqa yaa ngi dégg wa ak lu aw bi diini ah dañuy tabax jàkk jeeg lii lii sëriñ bi ah ñu ngi dajale ki jàkk jeeg lu la dakk dajale nga dugal sa poos di ci régler say soxla wala di lekk ci tuuru diine loom waroo ko lekk mais nga koy lekk ci tuuru diine xam nga temps yi dañu nekk ci liggéey boo xamante ni dafa am solo ku ci dugal sa dërëm xam nga diine gi di ngeen war dimbali diine nga nax nit ñi fekk yow loolu jëmale woo ko ci diine gi mais sa bopp nga koy jëmale loolu baaxul islam daf ko teel wa taaxiru salaati an awqaatiya wala nga yéex a yéexee julli julli ci waxtoom ci waxtoom yéexee julli waaw Cheikh Ahmed Tidiane nee na yéexee julli baaxul rawatina bu tàkkusaan bi mu ne sooy yéexee julli tàkkusaan day màbbal say jëf yu baax xam nga kon loolu ñu bëri war nañ ko xam yéexee julli tàkkusaan di ko mooy di ko sàgganee ba xam nga fekku la ci du sérieux daal nekkoo ci situation muñ ko bañ a julli léegi ci waxtu bi mais nga ne ah ci kanam xam naa xam naa mais nga tàmm ko loolu kooku baaxul dégg nga wala yaxillu lahu suxbatu faasiqin tey du dagan ci moom muy ànd ak faasiq koo xamante ne mooy ku ma leen waxoon sànq mooy kàccoor fasix mooy pervers mooy kàccoor ànd ak kàccoor daal daganut waaw wala mujaa mujaalasatuhu bi xayri dururatin durura mooy li nga xamante mënul ñàkk mooy ngant boo xamante mënul ñàkk loolu la ñooy durura mooy daganul tamit ngay toog ak fasix lu mooy ngeen bokk vol da ngeen bokk avion bokk ngeen oto loolu mënoo ci daal loolay durura ci lu am mënul ñàkk lonaange mën na cee dugg soo ci soo ko defee bi ma comprendre moom leen moom la ñooy nécessité cas de nécessité loolu la ñooy durura lu mënul ñàkk loo am dafa faw day dafa war a am ah yéen a bokk classe mënoo ci dara dañ dañ la invité fenn moom ñu invité ko mënoo ci dara comprendre ngeen loolu mooy kon faasix dañ ko war a daw mooy li ma leen firil sànq wala yet lu bu rida faasix nag balaa nga koy daw aussi da nga koy woo ci lu baax aussi bu leen xool ak nit ku bon rek ngeen daw ko nag du noonu den koy woo conscientiser ko jëm ko delloo si waat daal léegi su bañee nag ngeen doo ko daw ngeen daw ko gàddaay ko dee ngeen wala yatlubu ridaa ridaa al maxluqina bi suxtil xaaliqi te wala yatlubu jullit bi mu xalaf bi warut sàkku ngërmande ñi ñi bind ba am ci ba jëlee ci merop ki bind merab ki bind yàlla moo bind mais nga fexe nit ñi di la gërëm bëgg yow nit ñi gërëm la ba yàlla mi mi leen bind bind la yow au lieu que nga fexe ñu gërëm la yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi sàkku ngërmande nit ñi ba faf nag amee ci merab yàlla loolu loolu musiba la xaalallahu subhanahu yàlla wax na moom tudd nañ sellam wallahu wa rasuluhu axaqu an yurduuhu fii nag ci grammaire arabe dafa am wax ju affaire bu garaaw bu fi yàlla utilisé cax cax bii la gars yi di caxee xaam yi yàlla dafa ne wallaahu moom yàlla moo tax fii ku xam yàlla rek mu mën a comprendre yi wallaahu naka yàlla wa rasulahu ak yonentam ak xakku ah ñoom ñoo gën a yey yellu wala boog ñoo gën a yey ci an yurduhu ci ñu gërëm ci ñu gërëm ci ñu gërëm ko moom xam nga fii indiwul duel arab bi indiwul indiwul duel duel mooy nga wax wax joo xamante ne ñoom ñaar la waaye daf ko kennal ngërmande bi au lieu que mu ne mu gërëm la ñoom ñaar mu ne waaye ñu mu gërëm la ñoom ñaar ñu mu gërëm la noonu nga koy firi ci zaahir ni ñoo gën a yey ñoo gën a yel yey ci mu gërëm la firiwul ñu gërëm la de lii lii jaaxal na ñu bëri ci grammaire ñu bëri tey jii bu dul woon ne waxu yàlla la rek dañuy ne kon erreur la kon xam naa bëggul woon wax lii comprendre xëy na yurduhuma wala beneen yeneen damir la ñuy utiliser daal comprendre mais ah ñoom ñaar daal ñoo gën a yàlla ñu gërëm la ñu gërëmandoo la wala ñu gërëm la waaye mu gërëm la kan la ci yàlla ak yonent bi mu gërëm la lii jaaxal na borom xam-xam yu bari li ma leen wax nii dem leen ngeen seet ko ñu bari affaire bi daf leen jaaxal dañuy naan lu muy aaye la rek mais mais bu ma woon aaye sax ñu ne est-ce que du faute ndax xam naa yàlla bëgg ko woon waxee nii fekk loolu xikma la ndax yàlla ak moo fi nekkul yàlla rek ay yàlla loolu lii nag ñi xam yàlla ñoo ko xam moo tax yàlla ak yonent bi yàlla ngërmande moo am solo ndax te soo xoolee tamit léegi loolee dëgg ngërmande yonent bi mooy ngërmande yàlla kon jarul mu leen di ñaaral waaye daf ko kennal comprendre ngeen yàlla fii ñaaralul leen ñoom ñaar waaye dafa kennal ndax ngërmande yàlla mooy yoon ngërmande yonent bi ngërmande yàlla tamit mooy ngërmande yonent bi ngërmande yonent bi mooy ngërmande yàlla yonent bi su gërëmee xam nga yàlla gërëm na yàlla ku mu gërëm rek fekk na yonent bi gërëm na ah in kaanu mu'minina ndeem gëm nañ ndeem gëm nañ wa qaala alayhi salaamu te yonent bi salaa salaam wax na moom yàlla na yàlla doole ko mucc laa taa'ata li maxluqin fi masiyatil xaaliqi mu ne deet topp ci ki nga xamante ne moom dañ koo bind di ko fexe topp ba fi masiyatil xaaliq ba di di di di mooy ki nga xam mooy bind yow nga war a topp yàlla ngay ngay topp ki bind di sàkku ngërmandeem ba mooy ki nga moo bind ci dañuy nettali ay xisa yu siiw sax xisa yu bëree bëri lii nettali ñu ko ci ba ci sax suñu mbokk murit yi dañ koy nettali ci histoire Serigne Touba ay taalibeem yoo xam daf leen santoon ñu bayal ko tool ñu bayal ko mais bëgg ngërmande sëriñ bi ba waxtu julli bi jot julliwuñu nekk ci tool nekk ca nekk ci sàkket waaw sàkket la bëggoon mooy defaral ko sàkket mooy nekki nekk ci nekk ba waxtu julli yi fekk kii leen sëriñ Tuubaa yëg ko ne leen yéen kon julli woo leen waxtu yi ñu nekk ñun de seen ndigal bi leen toppoon rek mu leen dem leen fi ngeen yemoon ci sàkket yi avant ngeen julli yàqaat leen ko ba foofu fu ngeen yemoon ngeen dem julli après ngeen doo tàmbalewaat foofu defar comme nga tabax ba dix dix dix niveau rek nga fàttali ko ne sànq avant tisbaar yaa ngi woon trois niveau nga yàqaat set yëpp waaw parce que waroo topp ngërmaande nit ki ba mooy ngërmaande yàlla ba mooy digalu yàlla loolu la ñuy jàngale fii lii am na xisa yi sa yu bëree bëri yu mën ci mën a wax mais temps bi jot na ndax julli timis bi wala yaxillu lahu an yafala fi'lan xataa ya'lama xukmallaahi fii wala yaxillu du dagan lahu ñeel ko moom an yafala fi'lan mu jëf jëf joo xamante ne mu jëf ab jëf fi'lan mooy af ab jëf xataa ya'lama lu mooy rek ne xam na xukmalaay fii àtte yàlla ci jëf jooju jullit daal looy def balaa nga koy def war nga xam li la ci war a fekk lan moo ci lan la ci yàlla wax daal waaw wala soo xamul nga laajte ah dama am alal bëgg ko dépenser yàlla lan la wax soo amee alal foo ko war a dugal fii fii fii damaa war a sarax yàlla neen kan nga war a sarax ñii ñii dama bëgg a def lii ak lii lan la ci yàlla wax tabax kër salaam salaam dama bëgg a créer société lan la ci yàlla wax lii ak lii na nga fay nit ñi seen xàq alxuraan nee na lii lii ak lii dama bëgg a dëkk ci koñ bi yàlla la ci yàlla wax xàkki dëkk doo loolu kon lu ne rek war nga ci xam lan mooy atte yàlla balaa nga kaa jëf nee na mu kalaf bu ne war na xam loolu dégg ngeen wa yasal al ulamaa wa yaqtadiya bil mu bil muttabiina li sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa yasala al ulama waaye ngay laajte nit ku ne war nga fexe laajte ulama yi borom xam-xam yi wa yaqtadiya te it nga sàkku gindeeku ci ñoom bil muttabiina li sunnati ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy topp sunna ci ñoom yaa ngi dégg ñiy topp sunna daal kii waaye kii borom xam-xam la mais fekk toppul sunna kooku kenn du ko laaj waaw bu ko bu ko topp sooy roy mu ne sooy roy na nga roy ci ki nga am moom mu ngi topp sunna même su dee ñaari xam-xam la am kee am fukki xam-xam royal ki am ñaari xam-xam te jub dégg nga alayhi wa sallama allazina yadulluuna ala taatillahi ñi nga xam ne ñoom ñooy tegtale ci topp yàlla wu yuxaziruuna min attibaa'i sheytaani te ñooy moytandikuloo nit ñi ñoo leen di won danger xadar mooy danger danger bu ñooy ñi nga am ñooy yee nit ñi ci danger yi nga xamante ne nekk na ci topp seytaan ñooñu ngeen war a topp waaye ñoom soo leen toppee rek ñu ne ah yàlla baax na sëriñ bi am na lépp lii yàlla yàlla dina la ko jégal ëllëg xam nga loolu kenn xamul noonu la il def lu bon sax ñun kilifa yoom da lu bon lu ne ñu daganal ko wala ñu yombal ko wala ñu ne garaawul ah yàlla sëriñ bi barkeem ëpp na lii mais loolu baaxul ngeen moytu yooyu wala yarda li nafsihi ma radiyahu al muflisuuna allazina daat amrahum fi xayri taati taatillahi taala fa yaa xasaratum wa yaa tuula bukaa'im yowmal qiyaamati te it nit ki sooy topp dangay fexe dangay fexe gërëm lu di nangu ñi nga xamante ne ci sa bopp lu baax waaye ñi nga xamante ne ñoom baaxuñu dañoo jël jeexal seen dund gi yépp ci loo xam seen pertange bakken la ah mu ne ñooñ kenn du leen topp yaa ngi dégg ñu ngi am seen temps yépp seen temps yépp allazi daa at amrahum fii xayritaatillaa ñi ngi am daal seen seen dund gi sànq nañ ko seen temps sànq nañ ko ci lu dul yàlla wala ci lu dul tàpp yàlla mu ne ñooñ kenn warul gërëm seen ay jëf yaa ngi dégg tey nit ku ne war nga tàggat sa bakkan ba ñooñu nga moytu leen mu ne fayaa xasaratahu maa ngi woote seen perte maa ngi woo seen pertange wayaa tuulal bukaa yi maa ngi woo seen yàggaayu jooy yow mal xiyaam waaw maa ngi woo seen yàkkare yi bakkan daal lañ koy firi comprendre maanaam daal kon bu nangul sa bu nangul si sa bakkan bii bu ko nangul li nga xamante ne moom la ñi nga xamante ne perte nañ seen temps perte seen jëf nangul ci seen bopp ci lu yow sa bakken bu ko nangul loolu mukk nasalullah subhanahu an yuwaffiqana litibaa'i sunnati nabiyina wa shafiina wa sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam tudd nañ sellam yàlla nañu méngale li tibaa i sunnati ci ñu topp yàlla nañu may tawféexu chance u ak wërsëgu topp sunna yonent bi salaa sallam suñu yonent bi ki nga xam ne wa shafi ina mooy aji tinu siñu ki ñuy tiñu ki ñuy ramm ëllëg yow man xiyam ki nga xamante ne ñu def lu baax lépp mooy ñëw di leen défendre waaye ñu deful lu baax du leen défendre kan la suñu sang kan la muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lii mooy bunt bu njëkk ci laxtari ci introduction bi su ko defee bii di ñëw fas nañ fi taxaarati dinañ ñëw ci wàllu laab incha allah wama zalik àlalay bi aziz salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mun na am sax ma am jot firi leen ko yónnee leen ko après ñu xool wala su ma firee ba fi ma yem soo leen ñëwee ñu firee leen am lu am solo loo xamante ni dama ko fàtte woon sànq ci biir waxtaan bi mooy ci wàllu ci xool xool mooy fi mu naan bi bi naze- bi ba muy wax ci xi- eh, xibsu basarihi min nazari ilal xaraami mu ne ñu ne yonent bi salaa salaam dafa wax ne ñeent xool yi soo ko xoolee yàlla yàlla da lay bindal yiw ñeent xool yi ñoo am ñoo baax mu ne bu ci njëkk mooy xool alxuraan tax suñu maam El Hadj Malick si radiyallahu anhu ba ko daan wax mu ne soo ko mënul jàng sax ubbi ko xool ko nii rek xool ko nii rek yiw la ah waaw xool alxuraan baax na ak xool kaaba gi moo tax kilifa yu bari seen kër yi chaîne bu kaaba kaaba gi dañ koy faral teg mooy chaîne alxuraan bu bam kaaba gi dangeen koy fa gis tout le temps dañ koy teg rek di jàkkaarloo moom xool alxuraan kaaba gi nii dañ ciy bind yiw ak xool say waajur sa papa ak sa yaay nii nga leen di xool nii soo leen di xool nii da dañuy am yiw yaa ngi dégg moo tax sa papa ak sa yaay lu tax ñu naan xool yii nii yëpp dafa am solo alxuraan xool bi moom alxuraan moo la indi njëpp kooku da nga ko war a xool da nga ko war a xool xool bu neex bu rafet pas alxuraan dafa métti dafa compliqué dafa jafe jàng dafay rëbbaate déedéet kaaba gi yii waaye kaaba gi nit ñi di ko tourné nii chaque jour nii rek kaaba gii mooy suñu jubluwaay moom moo tax suñu fu suñu suñu jubloo ci moom yàlla nangul ñu suñu jaamu yàlla waajur bii ah ci moom sama leer ci yàlla ci moom la ko yàlla jaarale yàlla ci kii la ma yàlla jaarale xam nga xoolee ko bët yooyu mais bu ko xoolee kii paa bi dafa soof quoi paa bi dafay waar da ngay fa bëri wax meer bi da ngay man xoolal liggéey liggéey bi yàlla liggéey ci ñoom bi yàlla liggéey ci ci ci ñoom pour yow nga génn c'est que beneen xool la daal mais xam nga yonent li mu wax rek xam na ko ah waaye waxuñu nit ku bon waajur bu bon boo xamante ne day mooy yàlla taxul ñuy wax yaa ngi dégg ak xool borom xam-xam ñeent yi la yónni saa salaam wax ak xool borom xam-xam borom xam-xam di ko xool ni baax na wala di fexe ñuy dégg turam di ko koy fàttaliku loolu rek moo tax sax ñuy un photo de gis nga photo photo du kii la de photo bi daal la de xam ngeen loolu photo kii wul waaw photo kii wul daal même cheikh bi sax danga daan wax xadra mu ne waaye ñun àgg nañ ci niveau ngëm foo xamante ne suñuy xool photo leer gi ne ci ginnaaw photo bi la ñuy gis waaw mais ku mënul gis leer googu yow jarul ngay am photo sa kër ndax photo représentation la ëllëg yàlla dina la wax ne lépp loo am da nga ko représenté lépp loo am da nga ko dessiné rek yàlla dina la wax keroog jox ko jox ko bakken soo ko mënul jox bakken mu mbugal la waaye ñun duñ ci bokk parce que ñun xam nañ ne la ñuy xool deewut ka ñuy xool deewut ñun xam nañ loolu kooku kay ñun duñ ñu laaj ñu jox ko ba kenn xam seetlu ngeen mbir mi ah ak leer googu noonu nekk ci ah ak fàttali bi mu lay fàttali jukki yu rafet yi ñun loolu moo tax ñu koy xool mais liñ doon bañ ci ay représenté wala dessin nit ñi jamono yu njëkkee seen xel dëgërutoon soo ko defee rek su yàggee mën nañ jaamu loolu loolu lañ ciy bañ mooy ngay xool benn affaire ba yàgg ko ba bëgg ko place yàlla ba di ko jaamu loolu lañ ciy bañ. waaye nga xool bàyyi ak taaram bi ak leeram gi ne ah waaye ji moo ñu sauvé de moo ñu xamal suñu borom de kii moo ñu firil alxuraan de kii mu ñu sëgam nag ab kaaba xeer lañ mën a xool nag waaye bàyyi war nañ ko mën a xool moo tax mu ne nit nit borom xam-xam gis nga soo soo xoolee xool yi ñaar yëpp ñaari ah ñaari ay jamaat la ay ay ay mbir lañ yoo xamante du ñu nit dunduñu ay objet inanimé la kaaba gi xam nga dafa inanimé waa kaaba gi ak ko ak alxuraan xam nga dañu inanimé waaye ñeneen ñaar yi yuy dund la waajur day dund borom xam-xam day dund waaye nag kaay ma wax leen dara ñeent yëpp dañuy dund ndax kaaba gi alxuraan ba ñu laajee lan la ñuy wax di ne alxuraan yonent bi Aïcha ba ñu ko laajee lan mooy jikkoom ñu ne mooy alxuraan mu ne moom alxuraan bu doon dox ci kaw suuf la kon yonent bi alxuraan la borom xam-xam yëpp nee naan alxuraan buy dox ci kaw suuf la kon alxuraan nit la alxuraan mooy jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon gis na mu ngi lay delloo ci waat ci yonent bi ak gàll yaa ngi dégg kaaba mooy jubluwaay bi fa firu ilallaay daw leen jëm ci yàlla bàyyi neen daw leen jëm ci seen borom yow mooy kaaba gi kon kaaba googu itam mooy taxawee tamit nit kiy jubale nit ñi ci yàlla ki ñuy jublu mu mu yóbbu wan mat leen ci yàlla mooy nit ku yàlla ki kilifa gi kiy woote ci yàlla mooy borom jamono bi ci jamono bi mooy yonent bi mooy Cheikh Tidiane mooy Baye loolu mooy kaaba gi ci baat yi dégg ngeen mooy nit ku nekk sa jubluwaay comprendre ngeen borom xam-xam bi tamit nit la jubluwaay la dañ koo saxal waajur xam nit la dañ koo saxal teg ko sa kanam waaye wax ñu la xool pour jaamu ko gis nga xool yooyu noonu mu ne ñeent xool yi rek ñoo dagan kon xool borom xam-xam baax na moo tax man moom ab taalibe laa ci ñeneen ñi man jàngu ma sama jàng soriwut damay taqale nii rek di leen jàng as as lëf li ma jàng laa leen di jàngal mais man maay borom xam-xam bi ci yéen ci yéen nii man maa fi taxawee borom xam-xam bi kon yéen ñii yéen ngeen ñëw fii xool ma mooy seen njëriñ waaye dars bi xaar audio bi nii déedéet soo leen ñëw doo leen xool doo leen xool comprendre ngeen ah moo tax mu ne texe na képp ku ma gis képp ku gis Cheikh Tidiane képp ku gis nit yu baax na waaw du du gis nii nii rek daal soo ñëwee rek chaque jour di nga amaat leneen loo gis ci biir gis boobu nga koy gis di nga amaat beneen yëg beneen étape bu sa ruu bi di voyage day voyage dina am beneen étape bu mu franchiraat beneen dëgg bu mu dëgguwaat bu bees te loolu dafa am solo daal yaa ngi dégg defoon naa not tamit ci wàllu foo abas mu ne ñetti foo yi ñoo dagan la yonent sa sa wax mooy foo ak sa jabar wala foo ak fas ngir ëllëg nga mun koo dawal ci xare yi wala fett yeeg xale yeeg yooyu noonu ñuy utiliser ci ay rëbb pour ëllëg xeex su amee nga mën a rëbb nga mën a arme arme yi daal cadre boobu la lan lan ci lan ci nangu doon daal fen tamit jëloon naa ci ay not ñetti fen yi ñoo dagan fen bu njëkk bi mooy fen ngir muccal sa bakkan loolu mu jàngeen xadis boobu yonent bi kooku ñëw naan yonent bi de man def naa njombe mu ne ko loo def nit daf ma doon rey mu ne ma weddil sa diine bi soo weddil ma rey la léegi mu ne ko weddi naa mu ñëw di jooy yonent bi ne ko loo mu ne ko ah man de li ma def rek mu ne ko loo def waxal rek mu ne man de damaa weddi mu ne ko est-ce que ba nga ko waxee gëm nga sa xol wala gëmoo ko woon mu ne ko mukk musuma ko gëm sama xol dama ko def ngir rawale sa wax yàlla ne yonent bi ne jógal dem yàlla jéggal na la yàlla du la ko toppee kon borom xam-xam yi d'accord nañ ne lépp luy tax nga rawale sa sa bakken ak sa alal bandi yi topp la ne la ana sa kalpe nga ne leen bàyyi naa ko ci oto baag wala mu nekk fii keese ñëw si supermarché ñu ne mu ngi ne mu ngi fii wala mu ngi fële fenn yooyu ngay fen noonu pour rawale sa alal googu kooku fenn googu ndax may na may nañ ko waaw loo xamante ne daal dund daf cee nekk condition de vie alal googu tey jii soo leen ko joxee ñu yàq ko sa njaboot duñu lekk loolu baaxut fen boobu duñ ko considéré ak mais ñaareelu fen bi ñu nangu mooy fen boo xam da ngay fen da ngay fen ngir defar diggante Moussa ak Xabib ñoo xuloo Moussa Xabib ñu la bëgg pourtant nag moom su nekkee ñëw ak gars yi day wax ci yow lu rafet ah kon gars yi yooyu du dëgg nga demaat ci Habib Habib Moussa moom si pourtant nag dafa la fonk keroog dafa jooy sax dañuy wax sa wax rek mu jooy mu ne man xaw Moussa lu ma ko def man nii laa ko bëggee fii laa ko teg ah ak yéen pourtant de man moom day day def day wax ci yow lii lii lële wala mu ne la am sax moo la may lii nga dem ci kële tamit kii sax moo la may lii fen boobu ngay fen pour defar diggante yoon ci nee fen yooyu fen boobu nangu nañ ko mooy ngir ñaan ñu tàqale ko ak fenal sa soxna soxna yeneen bi ne nangu nañ ko mais boobu dañ ko sit mais nag dañ ko sit moom kay projet yi moom su génnee dinaa la jox bii su ñaanal mu sotti xam nga man yow yaay sama nit duma la yéene su sottee dinaa la may oto dinaa la may dinaa la may ngir nee nag mu yokk cofeelam ci yow ndax loolu day tax mu gën la bëgg te su la gënee bëgg da lay gën a toppatoo te moom comme toppatoo am jaamu yàlla la ci moom dañ koy bind kon fen boobu nekkatul fen noonu xam nga mu ngi yokk jaamu yàlla am kon islam lépp lu mu lay wax rek loo xamante ne ci ginnaaw loolu loolu lay doon daal comprendre ngeen kon ñu yemale ko foofu ma zalika alillahi bi aziz salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu almaa bi jaar